كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله waroon wax daanaka imaam bi tënk na ko wax muneel li des ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee waat nagandi déwén ñu ngi ñaan si borom bi tabaaraka wa taala mu jéggal ñu jàppale ñu jéggal ñu suñuy bépp rëcc rëcc xalifa bi ne borom bi tabaraka wa may ñu ñu fekkee waat ay ati at fekk ñu ngi dolleeku si wàllu am-am dolleeku si wàllu dundu dolleeku si wàllu wérgu-yaram yàlla defal ñu naataange si suñu biir réew ak mboolemi réew jullit yi xalifa bi nee na yal na yàlla wottu àdduna wërngël këpp rawatina suñu réew Sénégal yal na yàlla def déggoo ak juboo yàlla nañu yàlla dàqal bépp ay ne ñu ngi ndokkele mboole mi aalamul islaam fépp fu jullit nekk ñu lay ndokkale di la jaajëfal si bis bu tedd bi rawatina xalif généraux yi nekk fii ci suñu biir réew Sénégal ñu ngi si beral nag nuyoo suñu baay di ceerno basiiru muntaqa daha mu ne ñu ngi ndokkalewaat président de la république son excellence monsieur Macky Sall ñu koy ndokkale si bis bu tedd bi moom ak mboolemi gouvernement ak mboolem ñi koy jàppale si wàllu liggéey bi lépp daal di jàppandi lépp daal di ñoŋ ñu ngi leen di ndokkale bu baax a baax yo allah walluɓe ñu ngi sant suñu état taxawaay bu ñu taxawee ci wàllu pandémie bi di mbas mi di covid 19 seen taxawaay fës na si lool wax dëgg yàlla ñu jaambaare lañu yàlla na leen yàlla jàppale ba lépp luy jàngoro jóge ci Sénégal jóge àdduna wërngal këpp ne yàlla nañu yàlla wottu ñun ñépp kenn ku nekk ci ñun war nga jàpp boor keneen ki jàpp boor état bi suñu defee seeni wareef ñun tamee ñun population bi war na ñu def ñun tamee suñu wareef ak suñu warugar ak li ñu war kenn ku nekk si ñi nga xamante ne ñooy waa kër docteur wax dëgg yàlla gàcce ngalaama ñu ngi liggéey liggéey bu am am solo kenn ku nekk si ñun nag lépp luñ la digal mooy si wàllu kër docteur nanga nga topp tegtal yooyee jàmm ne ne wax mbas mi di covid 19 amul gaa yàlla sax na yàlla def fekk amul waaye nag moytu borom bi tabaaraka defa digal doomi aadama na moytu yàlla nañu yàlla musal ci mbas mi ñi ci muccu teme yàlla nañ ci yàlla boole ñi ci des ci wàllu mbas mi suñu borom ñu wuyu borom bi barzax yàlla na yàlla xaare leen ajana yàlla nañu yàlla may ñu fekkee waat ay ati at si jàmm ak salaam mboole mi jullit yi fiy joox si wuyu si si julli ji sëriñ bi nee na yéen ñëpp mu ngi leen di nee jërëjëfati yàlla na leen yàlla fay yàlla nangu leen mboole mi peres bi cant ak ngërëm ñeyal na leen takka der yi yéen tamit cant ak ngërëm ñeyal na leen équipe bi fi nekk di jàppale ñuy julli si ñoom tamit cant ak ngërëm ñeyal na leen sëriñ bi nee na yàlla nañ yàlla may ñu fekkee waat nagandi déwén mu ne ñu jàng fatiha ak salaatul fatihi ñu ne amin amin amin amin yow tami yàlla na nga fi yàgg